Gaston Production présente. Ça veut dire qu'il est presque prêt, presque parce que tout simplement on voit qu'il y a d'autres bouteilles encore à On espère un jour le soir que ce combat également soit euh, un combat où il n'y aura pas de mort, soit euh, un combat où il y aura contestation. Il y a Bombardier aussi qui rentre voilà, dans l'enceinte. Bombardier qui arrive. Bombardier qui arrive. Voilà, voilà Bombardier. 15 victoires, 7 défaites. 7 défaites. Et Balagaï, on le rappelle. On le rappelle. Ouais. Euh, 21 combats, il a 19 le plus grand événement de la saison. asalaamaaleykum mbokki àdduna mbokki Sénégal gannaaw ba nu sant yàlla jullit sangu sangi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur di aman mbégte ak contentement di ñëwaat seen post bu mag boobu la di gastonproduction.com tey nag ma toog ak ndaanaan boo xam ne macha allah kenn dootu ko laajte le plus jeune euh, reporter de sa génération. mais nag dafa marqué empreinte am parce que mën naa ni il est le plus pertinent d'habitude dañ ko daan gis muy tallal micro mais tey dama ko poñe maag Boubacar booba jàpp jaar ko defee ma jaar ko defee ñu poñe ko tey nag dañ ko fas yéene dëpp suñu micro laaj ko nañ ko bàyyi mu nuyoog suñu bokk internet yi mm-hmm. Mamadou Lamine maa lay ziar bu baax di la ziare di nuyu mbokk internet yi Gaston bu baax a baax di am mbégte ak contentement di nuyu sa caméraman Pape Bouba borom Tivaouane borom Tivaouane mais Mamadou Lamine mu mel ni que yow dëkk ba nga dëkk macha allah. Mhm. muy Loro. Mhm. du ma la dalal du ma sama xarit Sëwru Seck. waaw mais nga xam ne man ak yow dañoo bokk am lu ñu bokk ci moom. dëgg la dëkk ba nga dëkk fa la fa la kënu njëkk a tàkki. waaw l'histoire retiendra taarix da koy bind. mu mel ni que dañu nekk ci Covid 19 Mamadou Lamine ñi nga xam ni ñooy jeune reporter yi nan lañ koy dundee. ah na rek comme ni ko comme ni ko Sénégalais yëpp di dundee noonu lañ koy dundee. yaakaar naa ne Covid bi mu ngi fi ñëwoon depuis 2020 il y a deux ans. 2020 la dugg ci ci Sénégal. Mhm. yàq fi lu bëree bëree bëri yaakaar naa ne ñun ñun li mu metti ci ñun rek mooy li mu metti ci yeneen Sénégalais yëpp. Mhm. di ñaan yàlla moom mi nga xamante ne moom moo ko fi andi te moom kese moo ko fi mën a jëlee. Mhm. mu jëlee ñu ko fi ci lu mu gën a gaawee yaakaar naa ne nag bari na lu mu yàq ci dëkk bi mais yàlla lu mu def noonu la ndax yàlla du. xam nga yow Lamine lamb dafa dafa nekk der bi nga ñu ne reporté na lamb lan <laughs> waaye métti métti waaye kay. feebar foo ko foo ko natt rek weesu na ko. première fois bi bi ñu koy njëkk mu ngi nekkoon le quinze mars mhm. yaakaar naa noonu la Pape Bouba. Mhm. jour combat bébé Diène ak nga xamante ne moom mooy Fourrière di ñaanal bébé Diène yàlla jëlee ko fi nga xamante ne tey foofu la nekk ndax mu ngi ci ay loxo. Mhm. ci dimanche bi la soq waroon bëri ak gàmbu gi le seize bi Baba Diaw tëggoon ko. foofu la ñu waxee ne maanaam arrêté nañ lépp nga xamante rassemblement la. ci lundi bi la ñu waxoon gars gars yi dañ dañ ko anticiper waaw dañ ko mm-hmm. anticiper mu nekkoon loo xamante ne xaaruñu woon mu nekk ay ay trois mois quatre mois dañu foogoon benn un mois rek mm-hmm. bu baree ba bari deux mois gars yi ubbiwaat làmb ji mm-hmm. far ñu toog un an yoo xamante ni bëriwuñ mu nekk lu metti ngay da ngay daj ay coono pour nga am ay vidéo loolu moo ñu dalaat yaakaar naa ni yàggul dara bi nga xamante ne waa Rent DKR waroon nañoo tëgg ba ñu tëjaat làmb ji dajaat ay coono yu méttee métti pour am ay vidéo yu nga xamante ne moom ngay dugal sa seen YouTube. combat bi nga xam ne mu nekkoon le choc de l'année. Bombardier ak Balla Gaye report bi yow sa wàllu bopp. avant combat bi yow am na loo jotoon. Euh, xalaat ne da ko analyser avant combat bi sax balaa analyse bi man du ma euh, technicien. bi ñu bi ñu dàq combat yi. Mhm. fekk na ma jógee Looro. Mhm. fekk na nga jógee Looro di ñëw may jógee Looro di ñëw. waaw maa ngi jógee Looro ay 18 heures. Mhm. may jógee di ñëw ma déggante ak ak Jumbo. mu ni problème sécurité daal am na ñu ngi nekk di négocier man maa ngi am yaakaar ne ba ba léegi. Mhm. gars yi dinañ ko dinañ ko lijjanti. Mhm. ma ñëw ba egsi war a dem sama kër directement ma ñëw fii fii. bureau biro laa ñëw direct. Mhm. parce que dama ko war mu ne ñoom ñoo ngi ci suuf. di xaar buzz yoruñu caabi ma def fii direct ñu ñëw dugg génn dugg génn ba sànq suba dara sotti woo mu nekk lu métti ma ni lii su ma xamoon dama jóge loolu loolu lay toog. Euh, après tabaski la juste après fête bi. man tabaski mm-hmm. dama doon am ay ay 15 jours ay 13 jours loola. Mm-hmm. ma dem foofu am fa 4 jours. Mm-hmm. ñibbi si billaahi parce que boobu yaa ngi préparé combat boobu mais tam yaa ngi doon préparé combat Bombardier Balla Gaye. merci noonu la demee parce que loolu yaakaar naa ni la kii la woon le 25 juillet. lan nga doon xaar ci combat Bombardier Balla Gaye. combat bu neex laa doon xaar parce que face to face yi rek wane na ko. Balla Gaye bu am combat wax dëgg yàlla. amateur yëpp dañ koy xaar. Mhm. parce que li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy àqu combat bi. Mhm. daf ko koy jox. Mhm. dana yëngal avant combat bi. dina yëngal pendant combat bi. après combat bi bu nekk xaru yar. moom Ba moom Balla Gaye moom Balla Gaye. jël si revanche nag ci digganteem ak ki nga xamante ni moom mooy Bombardier. Bombardier mi nga xamante ni man maa ko tàllaloon sama micro. fekk ko ci saal ba ngapparu. ma ne ko sa diggante ak Balla Gaye numéro 2. moom nee na dafa feebaroon te sénégalais yi jàppoon nañ ne dafa feebaroon. mu ndax faju na ba wér moom Bombardier mu ne ma ndax faju na ba wér ndax faju na ba wér ma ne ko mooy borom INSEPS de mu ne ma ndax faju na ba wér ma ko lay mënatul am mhm. damaa feebar mënatul am ci combat bi mu ne bu paree na ñëw mu may ko revanche mhm. Balla Gaye dem ba pare Gaston tëgg combat boobu noonu Balla Gaye ñëw ni ko gis nga seen dernier face to face mhm. Balla ko xam nga ni la woon wonni na Bombardier Balla Gaye bi nga daanoon Balla Gaye bi du benn kon yaakaar naan foofu lay mënu fa a am combat bu neex laa doon xaar comme ni ko yenn amateurs yi doon xaare retour Gaston Mbengue ci ci ci arène bi. ci làmb yokkute yokkute làmb la rek. yaakaar naa ne tey jii promoteur bu mën a ñëw yokk ci làmb rek. Mhm. di tëgg ay événement yaakaar naa ne da nga ñëw pour yokk làmb loolu lañu bëgg tey moom retour am bëgg nañ ci di ko ñaanal combat yi nga xamante ne tëgg na ko yëpp mu am ci réussir waaye nag yeneen promoteurs yi nga xamante ne tey doon nañ tëgg te gisatuñ leen ku ci mel ne ñoom Kandji production. Mhm. doon nañ ko gis muy tëgg ay ñu ngi koy ñaanal ku mel ni moom ku mel ni ñoom Petit Mbaye mhm. lamb dañ koy fàtte mhm. lu bare bare mhm, bare di ñaan tamit ki nga moom mooy président Macky Sall mu jàpp si ba mu ñibbi si waat di organiser li nga xamante ne moom mooy ay événement parce que mbëri ñu ëpp promoteurs yi tamit ñu ëpp journée waaw mu mel ne am na beneen combat boo xam ni moom moom metti gënu koo weesu muy diggante Papa Sow ak ki nga xam mooy Siteu ndax combat bu yow diire bi diire bi gis nga ni mu ni mu mu toll presque daaw lañ ñëwoon ñu aj ko ñu demaat ba ji ñu ajaat ko lan ngay dool ci combat metti kay comme ni ma waxoon rek. Mhm. metti na ci mbër yëpp waaye ci ñoom la gën a metti. Ah, a pare. ñu jours avant. Mhm. lañ ko dàqoon booba booba def sa voyage nga nga dem ko ci àll bi da dem di jëli rek. parce mhm. que yenn avance sax doon dugg ci yenn maaraay ñu commencé liggéey liggéey bi. ci wéyu combat dem jëli say bagage ñu sangoo ci des di saraxe ñii sarax ay nag parfois xam nga sëriñ yi dafa am ñoo xamante ni dañoo mën sarax yu diis dañoo mën <laughs> sarax yu diis <laughs> saaru <laughs> sëñ si sabi sëñ Babacar xam nga ñooñu seeni sarax day metti mm-hmm. nga def say sarax waaj maanaam financé xaalis bu bari bu ñu la fayee quarante millions wala quarante cinq millions mm-hmm. avant combat bi rek mën nga cee def quinze millions mm-hmm. mu des quinze jours ñu dàq ko bii paa nga ñëwaat ba mu des quatre jours ñu dàq ko metti na ci mbër yëpp waaye ci ñoom la gën a metti moo ki nga xamante ni moom mooy Matar Ba di mi nga xamante ne moom lañ dénk tey sport bi. Mhm. ñu bari di ko jiiñ ministre wu làmb. Mhm. kon na gën a gestu làmb. Mhm. na gën a jàppale mbër yëpp waaye na jàppale Papa Sow. ak Siteu bee passé dédommagé nañ ñi nga xamante ñooy promoteurs yi. ñi ay 2 millions. ñi 5 millions jeune reporter yi kat perte perte perte leen dara yow maanaam yéen yéen yéen man dañ leen a teggal coono rek mais nañu gestu Siteu ak Papa Sow daal man bëgg naa ñu gestu leen jàppale leen hmm, noonu nga ngeen jël reporter perte nu dara ah. waaye ay tournée dañu wax ak yow de Lamine Seck hmm. yaa ngi bëgg a dugg ci beneen débat <laughs> te ta du mën nekk nag parce que damay damay génn nii dimbali ma bës la àndaloon combat ñaq jariñu la woon hmm. Moussa Balla Gaye suma ma juum. Moussa Balla Gaye ci nga njëkk a reporté Lamine Seck nekk ci milieu bi léegi ban acte lañ ko ci mës a def mu toog néegam mu naqarlu ko ni lii metti na ma. man ci liggéey bi. Mhm. non man man man nag lu may metti. bariwul ma metti <laughs> man li de parce que man man man bu jëree bu jëree bu jëree ñu gisee ci ruq. dañuy gisee ci ruq waxtaan. non defante defante dañuy defante. bu jeexee après mu jeex. bu jeexee mu après mu jeex. na mm-hmm. toog du doo togg du métti lu dara quoi. non non métti lu ma dara parce que man lépp lu nga xamante ne tey nit mënoon na ma ko wax ci millier bi mu naaru ñàkk fayda damay xam ne da nga ko wax ci sa ci sa ci sa teew ba da ko wax ci sa naf. ci sa mm-hmm. bakkan nga ko teg rek. Mm-hmm. mais nekkul loo xamante ne lu am la. sa rapport ak sa patron. Buzz borom perpévu seen diggante. Buzz moo ma formé <laughs> pièce par pièce. Euh. waaw moom moo ma formé. moo ko ci def. moo ma formé. de A à Z. ci li côté yëpp. noo gisee comportement. nit ku baax la. Hmm. fois dama koy mere ci bari jàmm. <laughs> parce que ak compréhension. waaw dama dama koy meree ci bari jàmm ba mu xam ne kii dama koy mere ci bari dama koy mere ci parce que dañ naan ku dëkk ci tooñ. Hmm. doo mucc. Hmm. waaye ku dëkk tamit ci fayu doo mucc. doo mucc am na solo Lamine looy tëjee. kontaan ci yow bu baax a baax. di euh, ñaanal ñëpp jàmm. Euh, <laughs> vraiment ci nga ma parce que maa ngi nii yéen boobu <laughs> waa Loro. waa Loro du ma leen bañ a nuyu ndax jàmbaar yaa ngi foofu maa ngi leen nuyu bu baax. ndeysaan di tamit ki nga xamante ne moom mooy sóoru. sóoru suñu xarit. waaw ku baax. sóoru papa man. papa la sama seex sama jumeau sama doomi ndey. ndax papaam. Mhm. ak sama maam bi jur sama pap mhm. ñu bokk benn pap ah sóoru sa papa la. waaw Labba sekk sa lan la soxnaam. sa tàntal Labba Seck papaam. Mhm. ak sama papa ñoo bokk ndey baay kon sooru mooy borom dëkk ba mooy borom lor waaw xale la moom xale la moo tax <laughs> xale bokk ndey ak baay. jërëjëf waaw. kontaan yow kooku mooy Lamine Seck moom laa daloon dégg nga li mu wax patron Beuz nee na Beuz nit ku baax la waaye nag buba ñun tamit suñ patron ku baax la Makan Mbeng nit ku baax la. ana seen patron mag ba ak bari problème. Gaston <laughs> looy wax Gaston nga di. <laughs> moo bari problème. waxi du samay wax nag. réew mi yëpp mu Gaston ci waxi waxi Lamine Seck la. sama gars yi jërëjëf. jërëjëf. <laughs> Gaston Production présente. qu'il est presque prêt, presque parce que tout simplement on voit qu'il y a d'autres bouteilles encore à l'intérieur. Ouais. On espère, on le souhaite que ce combat également ouais. soit euh, un combat où il n'y aura pas de mort, ouais. soit euh, un combat où il y aura contestation. Il y a Bombardier aussi qui rentre voilà, dans Bombardier qui arrive. Bombardier qui arrive, voilà, voilà Bombardier. 15 victoires, 7 défaites. 7 défaites. Et Balabé, on le rappelle, Balagaïde, on le rappelle. 21 combats, il